rafetlu suñu ànd ak yéen ci biir Sunugal 24 mbokk yi asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci biir jotaayu xibaar ñu ànd ak yéen jukki leen ponk yi ci gën a fës doore ko ak naqar ak tiis bi dal ci communauté Mouride mu di génnug àdduna ak Serigne Moustapha ma Massamba ci guddik samedi jàpp dimas bi ñu suuf ñu wax ci ONG Jamra bi nga xam ne vice président bi di ma Matar Gueye dal dinay fas yéene déposé ñetti plainte jëmale ko ci série infidèle bi yu mujj yi moom la ñuy waxtaanee ak image yu Léna Gueye ñu wax ci Mati Trois Pommes euh, mi euh, dànkaafu ba noppi dal ci kaw Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moo di capitaine Touré def na ay révélation yu yaatu te doy dañ ko gën a yaatal ci biir xibaar yi buñ ca noppee dañu jeexale li gën fës ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l' action sociale amal tey euh, ci altine yem ak ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru sulet mbokki xarit li mooy li fas ci banque yi ngeen lu bàkk bi jàll ñu faram ko salaamaaleykum mbokk yi ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyoo nañu leen ko junjee woon ci bopp xibaar yi noonu la ñu koy dooree faram ak la xew ca Touba Mbacké naqar ak bu dal ci kaw murit yi mu di génnuk àdduna Serigne Moustapha Mbacké Massamba di kenn ci waa kër Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadimu Rasoul moo génn àdduna ci guddik samedi jàpp dimanche bi ñu weesu moom mu nekkoon nit boo xam ne ràññee nañu ko lool ci yoonu murit ci liggéey bi mu doon liggéeyal Serigne Serigne Touba ak li nga xam ne moom moo di taxawaay bu mu taxawee woon ci wetu sëriñ Serigne Mountakha Bassirou Mbacke ba tax na suñu gal 24 mi ngi jébbal ak njaalam képp goo xam ne yaa ngi ci yoonu murit rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa kër Serigne Touba ñu àddu wax ci leneen lu ñeel jafe-jafe yi nga xam ne moom lañuy nemmeeku ci réew mi jamono ji mu di jàngoro yi coronavirus gi nga xam ne troisième vague bi tiital na bi ak ay nit yu ci faatu bu ñu defee ab xayma ak li jot a xew daal dinañuy gis nag ñi nga xam ne ñoom ñoo dëkkee ca wetu sëkk ya ca yoof daal dinañuy àddu wax ci lu nu mel tiitaange sañu ci am nag jamono ji daal nay tax nag ñu daal di wax ci situation ba fa am fan yi li nga xam ne moom moo di la ñu fay suul ci ay néew bari na lool bu ñu sukkandikoo ci dëkkandoo yi dem nañ sax bay wax ne li nga xam ne moom moo di la ñu fay suul ci ay néew bët bu set daf leen tiital ñu des ci jàngoro yu coronavirus ginnaaw bu ñu jógee ci sëgi jullit ca yoof dañuy dem ca Saint-Lazare ñoom itam àdduna nañu wax ci li nga xam ne moom moo di la ñu fay suul bët bu set te lim ba di gën a yokk bu ñu sukkandikoo ci Habib Sagna yi nga xam ne ab dëkkandoo la fa nee na bët bu yàlla sàkk rek dinañu suul. ay néew yoo xam ne jàngoro ji di coronavirus moo leen fàtt lu leen tiital la te bu li nga xam ne moom la ñu gis bu dakul dinañu dem ba tëj li nga xam ne moom moo di cimetière yi fii lekk ñaari at ñu àddu wax ci leneen li nga xam ne moom moo di coow ci Sénégal mu di série infidèle bi ak ay image yoo xam ne ñu ngi ko ci tàmbali di gis te tax na li nga xam ne moom moo di ONG Jamra ak ki nga xam ne moom moo di vice président bi di Mame Matar Gueye fas yéene déposé ñetti plainte yoo xam ne daal dinay saisir CNRA ak procureur de la république ak direction cinématographique ginnaaw ay images yoo xam ne nag ñu ngi koy seetlu actrice bi di Lena Gueye te ñu ràññee ci série infidèle te mu coy wuyoo Tima mu dem mbay eh, simmeeku mu doon image yoo xam ne lu ñëpp ñaawlu la ba tax na daal ONG Jamra comme moom eh, sàmm jikko yi moo ko fi tax a toog ak xool loo xam ne rek dëppoowut ak eh, suñu aada ak suñu cosaan ñu daal di koy xeex moom jóg na ci taxaw ngir nag bi lépp série ñu daal di koy dakkal ñu wax ci ki nga xam ne moom ONG Jamra moo taxoon ñu dal di koy teg loxo wala ñaar ñi nga xam ne ONG Jamra moo taxoon ñu teg leen loxo mu di Ahmed Thiou ak Amady Badiane ginnaaw def nañ ko ci kaso gi libéré nañu leen ni ki démb ci dimanche ji seenub àtte eh, la ñu leen tëjoon eh, atum yàlla moo xam ne kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar weer walay tëdd seen pen nag daal dinay mat ba ñu ñibbi ni ki démb ci seenu ko njaboot la ñu leen doon toppee mu di outrage public au bon mars ñu àddu wax ci leneen li nga xam ne ba tey eh, mu ngi ñeel li di actrice yi ci série yi mu di Aïcha Thiam ñu gën ko xam ci li nga xam ne moom moo di turu Mariama ci série infidèle mu mel ni moom li dal leen a lay moytu ba tax na moo di série boobu di infidèle ginnaaw bu ñu ko joxee role boo xam ne daal daf cee waroon no jouer loo xam ne moom jàpp ne na euh, sorewul ak li nga xam ne moom moo di pornographique ba tax na mu daal di koy lànk ba dakkal li nga xam ne moom moo di collaboration bi mu amoon ak waa Yvonne Prod ñu wax ci mati Trois Pommes mi nga xam ne moom jógul ci di attaqué ki nga xam ne moom moo di njiitul Pastef di Ousmane Sonko ginnaaw coow li nga xam ne am na fi ci weer yu ñu weesu mu di Adji ak Ousmane Sonko euh, ba ñu di ci radié ki nga xam ne moom moo di euh, capitaine Touré moom Mati Trois Pommes nag ni ki euh, démb dal dinay def ab vidéo dal ci kaw ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ak euh, kii di capitaine Touré def ay révélation yuy firndeel ne moom euh, capitaine Touré euh, ci li nga xam ne moom moo di bi ñuy wàcc lii di convocation bu Ousmane Sonko ca maanaam ca ngoon ga ki nga xam ne moo di capitaine Touré ak usman Sonko daje nañu ca cité kër góor gi ca 21h jàpp 22h ci benn oto 4x4 bu gris nee na moom dafay samp ab laaj ba xam Ousmane Sonko lan la doon wax ak ki nga xam ne moom moo di capitaine. capitaine dem na sax bay tuuma ne lu njikk njàkk capitaine Touré mooy njàkk ñu addu wax ci leneen fédération boulanger ci réewum Sénégal mu mel ni la doon xupp mujje nañu ko dal di amal ci yokk mburu mi ci réew mi di euh, Sénégal bu ñu sukkandikoo ci seen ay kàddu eh, ni ki tey nag la daal di yokk mburu mi nga xam ne baguette bi doon jar fanweeri dërëm yokku nañu ko eh, ba ñeent fukki dërëm mu doon ab dogal boo xam ne ñoom ñëpp daal di nañu ci àndandoo ñu àddu wax ci leneen eh, ginnaaw xeex li nga xam ne moom moo di dajaloo bi te li ko sopp di jàngoro yi coronavirus ci réew mi di Sénégal ñu doon waajal ay combat yoo xam ne dañu ko mujjee annulé kii di Gaston Mbengue nag daal di nay démentir ginnaaw bu ñu doon wax ay combat Balla Gaye 2 ak Bombardier dañu koy dal di annulé kàddu yu Gaston Mbengue mi nga xam ne moom moo di promoteur bi nag dafay firndeel rek ne boobule combat ah, dinañu ko amal bu ñu sukkandikoo ci su a moom Gaston Mbengue nee na wax na ak autorité yi gouverneur police ak yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk lii di langug sport bi ku ci mel ni Matar Ba tey itam rafetlu nañu position bi mu taxawee def bu boole combat à huis clos ngir ñu respecter li nga xam ne moom moo di euh, mesure barrière yi ñu wax ci wàllum wér yaram ak ki ñu ko dénk di Abdoulaye Diouf Sarr mi daldi di weddi ba noppi xamle li nga xam ne moom moo di tolluwaayu mbas mi ci biir réew mi ak li nga xam ne moom moo di oxygène yi ñu doon uti ci réew yi tugal yi ab lim dal na koy fësal lu tolloog téeméeri junni euh, ci ay euh, oxygène ñu ngi ci réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi ki nga xam ne moom moo di Diouf Sarr ak xayma bi mu def lu tolloog deux cent quarante mille mètres cubes daal dinañu koy euh, commandé lu tolloog quatre mille deux cent soixante sept yi livré nañu ko cent quarante trois sept cent trente yi moom la ñu stocké liy firndeel rek ne oxygène bi ñu manqué woon te mu doon tiital ñuy yëngu ci wàllum paj mi ci lu ñeel jàngoroy coronavirus seen xel mën na dal ñu dem ca Vélingara ginnaaw arrestation yi fa am ñaari élèves yoo xam ne teg nañu leen loxo ci lycée bu sange ginnaaw ay attaques. sabotage yu fa am doon yàqati école ba ba noppi taal fa nga xam ne fa la enseignant yi logé woon ginnaaw bu leen chef de village ba lankale woon li nga xam ne moom moo di ab soirée bu ñu fa euh, naroon amal ci la ñu daal di mere nag ba def jooju joojule jëye ba ñaar ci ñoom jot nañu leen a teg loxo ñu àddu wax ci leneen lu yees li nga xam ne euh, fësal nañu ko ci faatoog douane bi de Léon Youga Faye euh, di ab adjudant douane bi nga xam ne moom lañu euh, faatoon ab bal ca Rosso bu ñu sukkandikoo ci l'observateur ki nga xam ne tegoon nañu ko loxo jàppoon ne moo ko faat daal nañu koy bàyyi ndax faute de preuve maanaam preuve ya ñu ca dajale yépp rek firndewul ne moom moo ko dal di faat ndax arme crime bi nga xam ne moom la ñu ko faatee douane yi ñetti at ñu ngi ko doon wër ba tax na daal ñu ngi wéyal di amal boobule enquête ngir xam kanam moo ko fekk ci néegam ba daal di koy faat ñu dem ci Touba ay ndongo daara yu doon sauté ci benn immeuble euh, ba am na ñu ci jëlee ay gaañu gaañu askan way samp ab laaj ba xam lan moo jaral yooyu leen ndongo daara daal di nag sauté ca boobule immeuble mi ngi amee ci quartier Madiana ginnaaw si ñi nga xam ne ñoom ñoo di police daal di nañuy teew ca lieu ya ngir def li nga xam ne moom moo di constat bi ba noppi daal di ci ubbi ab enquête ginnaaw bu ñu jugee Touba dañuy jàll ci Diourbel benn berger boo xam ne dañu ko fa diggante euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di taalibey benn sëriñ ak ki nga xam ne moom moo di berger bi ñu doon jiiñ ne dafa dugg ci toolu sëriñ ba doon fa sàmm bu ñu sukkandikoo ci source a noonu la coow li doore ba ñu daal di koy door dóor yu métti ba mu mujjee ñàkk ci bakkanam moom mi nga xam ne moom moo di baraka ñi ñu jiiñ na nag ñoo ko faat yoon daal dinañ leen di teg loxo ba ñu defeere leen ca Jurbel euh, ñu dem ca Mali ginnaaw euh, li nga xam ne moom moo di tentative d'assassinat boo fa waroon am ci euh, jouru tabaski bi ñu weesu ci président bi nga xam ne moom moo di président bu Mali li nga xam ne nag moo ca jot xew lu ñu fësal ni ki doon doon faat président euh, boobu nag di euh, kii nga xam ne moom moo di Guatta dal dina ñuy wax ne faatu na ni ki euh, démb ci dimanche ji mu doon ab communiqué boo xam ne gouvernement ba ñu ko fësal waaye autopsie daal dinañu koy ordonné ci nu mu gën a gaawee ñu xam ci yan circonstance la kooku nga xam ne moom bëggoon faat président bu Mali boobu mujjee faatu ñu jeexale xibaar yi ak tolluwaay mbas mi ci biir réew mi bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi ministère de la santé de l'action sociale amal tey ci altine ak juróom benn ci weeru sulet ci test yi jot a def juróom benn téeméeri nit ak fukk ak juróom-ñett ñoo dellu si am doomu jàngoro bi juróomi nit ñàkkaat seen bakkan dolliku ci lim ba ñàkkoon seen bakkan ñetti téeméeri nit ak juróom-ñeent ci ñu entré woon ci hôpitaux yi wér nañ ba ñibbi seen i kër juróom fukki nit ak benn ñi ngi Sowétas tax ñiy sàmmonteeg wér gu yaramu doomu dama yi di ci lëkkook ministère de la santé et de l' action sociale di sàkku ci askan wi ñuy gën di wéyal digle yi te bàyyi tere yi bokk na ci takk masque laal zel respecté dandante bi te bàyyi dajaloo bi mbokk yi xarit yi lii lañ leen doon dëgtal ci ay xibaar fii la ñu koy ndar keppe ñi ngi ñaan ngeen di woy suñu programme di leen ñaanal kenn kendalu jàmm te leen di jox dig daje ëllëg incha allah